asalaamaaleykum àdduna asalaamaaleykum Sénégal asalaamaaleykum mbokki internet yi ñuy seetaan tey ngeen àndaloon seen site Dakar Net ñëw seet si suñu mbokk di ale di ambassadeur de handicap tey jii moo organisé woon benn journée bu mag di fas yéene joxe don ay mbokk handicapés ñu yegg ci dugg ci biir xool. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Déjà, nous tenons à Monsieur Moussa Kamara, le président des acteurs pour le développement euh, de Boun, Monsieur Aliou Badara Diop, coordinateur, euh, Monsieur Sambassi, le secrétaire général, Monsieur Paul Bass, donc euh, Madame Mambine Tafal et Ablaï Kerel, Monsieur Issa et Monsieur Mamadouba. Donc, euh, ils sont là. Le président de l'association des handicapés de Guinaouraï, il a tenu à faire le déplacement ici. Monsieur Ousmane Bang, lui aussi, il est là. Monsieur Ali, l'ambassadeur, musicien engagé, il sera là pour euh, le don de fournitures scolaires pour les enfants en situation de handicap à l'occasion de la journée mondiale des personnes en situation de handicap au Sénégal. C'est une semaine. Donc, euh, Monsieur Allé, artiste musicien, il a tenu à donner des dons de fournitures scolaires, des sacs, des cahiers. Donc, euh, sans l'appui de ces honorables invités, je pense que ça n'aurait pas eu lieu d'être. Donc, c'est pour cela. maa ngi leen di nuyu kenn nekk si turam ak santam di nuyu ñi nga xam ne ñoom ñoo teew si salle bi yëpp di nuyu aussi tamit les invités mais di nuyu plus particulièrement Ali bi nga xam ne moom moo organisé événement bi. man ba ma aale woowee mu ne ma ah yow yaay Moussa Camara ma ne ko waaw man maay Moussa Camara mu ne ma ah man de dañ ma jox sa numéro ma am événement bu may organisé mu bëggoon euh, xool nan lañuy ñuy pour nga jàppale ñu suñu liggéey. ma ne ko kañ la événement bi mu ne ma le 5 ne ko non le 5 dama jàmm mais événement boo koy programme da koy programme à temps mu ne ma non man handicapé la mais du ma yàllawaat mais damay faral di dimbali ay nit si action yi nga xamante ne moom la ñuy def ma ne ko ah bon mu ne ma waaw. ma ne ko mais bon xam naa ni jàmp na wóoru ma ndax dinañ ci mën dara mais amul problème yónnee ma programme bi après moo xool ba mu ma yónnee programme bi moo xool. bon immédiatement j'étais ému ndax dama toog ma ne non non ku mel nii nan la mën a organiser événement bu mel nii à l'instant ma ne ko léegi amul problème. kontaan naa ci yéen baax a baax a baax a baax a baax maa ngi jégalu traitement bi ma leen ak sant bi comme nii nga xam ne événement yëpp day bari waaw mais ngeen bëgg Aali Ben MC ñëw seet si waaw Aali Ben MC nag daa pare pour nekk ambassadeur personne handicapée waaye Aali Ben MC daa bëgg a nekk acteur développement. Aali dafa nekk jeune nekk xale nekk handicapé waaye comme li Pa Aada wax handicap ci xel la. muusut gëm ne dafa am handicap te ñun ñëpp tey am nañu handicap man ale dama koo xam ci benn jour ñu invité ko Raay bi FM ma ñëw fekk ko bi koy waa ji invité mu tëdd mu jaaxal ma loolu ki nan la mën a def émission ci condition yi ma dégg mu wax lu am solo mu ne ma mu ne Bookar mi ko invité woon Bookar man def laa lu ne pour bañ a yelwaat boobu laa ko naw ba bis ni ki yàlla def nag ñu ànd mu gëm boppam parce que dina ko dégg sax ci ay sanctions yu muy génne yu muy wax yu am solo benn dina ci wax situation mais beneen bi mu wax la mu wax gëm bopp nit day gëm boppam loolu depuis lors mu engagé wu en tant que artiste ne ci musique bi la mën a participer ci développement nit ñi mu ne waaye du yem ci souvent dañ daan gis fédération organisation yi nga xam ne ne ñooy organisation handicap yi bu ñuy nommé seen ambassadeur dañuy jël soit benn artiste wala benn kii kooku doo xam ne dund ko du ko gën a mën a porter ci plaidoyer ale depuis leur mission en tant que artiste da ko jëmale ci moo tax muy woowee boppam ambassadeur des personnes en situation d' handicap ale yow laay sambay mbayaan ku ci bubu xamaani carga calal yeew yeew duniya ko mbere jeey adduna ko mbere sa yaay sa kër baay baay moo la sakkal yaay yaay moo la sa yaay dala eh, dala gërëm ale leelele d'abord damay damay sargal Ali di ko gërëm déjà si initiative bi initiative bu rafet la parce que c'est un acte très noble boo xamante ne déjà comme niñ ko gars di waxee handicapé yi ci réew mi lañ bokk boo amee un jeune boo xam ne am na xel pour mën a sóoraale handicapé yi pour xool nan lañ leen jàppale kooku yaakaar naa jeune bu ñu war a encouragé la déjà ñun ñu ngi koy encouragé d'abord ci initiative bu mu jël euh, di ko aussi tam sant déjà ci lu muy associé ci mbir mi ba ñun ñi ñëw bokk ci événement yu mel nii parce que yu am solo la pour ñu mën a jàppale ñi nga xam te dañoo nekk dans une situation euh, boo xamante ne à mobilité réduite ñu koy gërëm dèjà di ko sant di ko encouragé pour mu gën a continuer ci dina bi mu nekk. waa bis bi moom macha allah moom macha allah waaw yàlla moom lu mu def rek am na lu tax ñàkk dox wala ñàkk gis taxul tamit doo am may waa loo gis rek yàlla moo koy dogalee noonu waa ale nag handicap am man mag yaay ma bokk ndey baay ñu may ma ko depuis mu nekk bi mu juddoo la ma ko yaa may boobu xawma lu yàlla di dogal ci moom mu juddu nag mel nii mais ñu nangu ko moom tamit nag mu nekk koo xam ni gëm boppam mënoon na heure bi nekk di tàllal loxo mi moom nanguwu ko nangu ko ñun sax mënoon nañ ko nangu te moom du ko nangu wala moom mu nangu ko te ñun duñ ko nangu mais Aly mës sa nangoo tàllal loxo nekk ku gëm boppam nag xam ni yàlla dogal ci moom mais mu gëm boppam waaw loolu dama cee kontaan dama cee kontaan di sant yàlla rek ndax wax dëgg yàlla ah loolu moom ku sañoon sa doom def ko kon damay sant yàlla rek di julli ci yonent bi damaa sant bu baax a baax a baax a baax di ñaan yàlla mu yokk ko rek aale bu daal dama koy ñaanal yàlla yàlla yal na ko yokk ñi koy jàppale yal na leen yàlla yokk ci barke yonent bi lool daal maa ngi koy def daal maa ngi sant yàlla bu baax daal. sant naa bu baax tey autorité la nga doon wax bu nu jàppalee aale parce que li muy def nii gis nañ ni rafet na trop initiation yi am rafet xanaa nu gën koo rek maa ngi woo ñëpp nag pour nag euh, ku lu baax dana ci réew mi. te dib jullit rek te yàlla rek tax maa ngi lay woo nga jàppale aale mbuub ndax wax dëgg yàlla li muy def daal su ma sañoon day yokk waaye du wàññi ko kon maa ngi ñaan képp ku man lu baax te di ko def rek te nekk ci réew mi rek nga jàppale aale ngay wax yéen koy jur yi nga xam ne am nañ doom ju mel nii way laagoo ñu war ko mën a jàppale ko ni ko jàppalee aale du yàkkamti wuñu génnee ko ci mbedd mi noo leen di wax ndeysaan dama leen di wax ñu téye ko rek ndax yàlla la te ku mel nii yàlla du ko jox ku bon ku baax rek la koy jox kon dama leen di wax ni leen ku ci am doom mu mel nii rek da nga ko sa téeméeri loxo na gën a sax sa doom yi man dara waaw ma daal aali bub daal a ah, man de damay sant yàlla di ñaan yàlla mu maa ma moom rek waaw bëgg ko nag ci sama xol bi nag ba yemalu ma ko dara barke Sëriñ Bamba waaw tey dama kontaan waaw dama kontaan ci euh, li ma def quoi ndax affaire bi xam ni ma ko waxee chaque jour rek affaire bi def te tax la jëf ko bañ ko wax la waa damaa bëgg xale xale handicapé yi gën a jàng waaw damaa jàpp tamit handicapé war naa mën a dem da nekk président waaw waaw may wax yaay waaw nañ mel ni sama yaay rek waaw jël seen doom waaw dañ kaa yóbbu ci tali ma yorwaan waaye jël seen doom tamit yóbbu ko ci école bi ma jàng waaw loolu laa wax te aussi tamit xale handicapé bi demee ba am yenn âge yi ñu toog ko ndax àndkate daal di fale di folle waaw kii euh, tey jii euh, autorités yi lan nga leen di wax comme en tant que jeune tey nga def lii xam nga jàppale sa mbokk handicapé yi loolu dafa rafet léegi te lan ngay euh, lancer message autorités yi waaw di wax autorités yi waa nañ ñëw wuyu si ma nañ ñëw jàppale ma aada bi nañ si tabax maison de handicapé personne handicapé ndax am na handicapé yoo xam ne tey sama waa kër yi dañ leen toppatoo bu ñuy bale mbale di seen xaw lañ koy yemale bu ñu amee raq ñu jël seen raq yi teg leen seen xaw waaw di di leen sàggane affaire yooyu noonu waa mais Ali bëgg nañoo xam tey lan moo dugal ci musique. waaw bañ a yowaan bañ a tàllal kenn loxo gis naa nit ñi am doole di dox ak seen tànk man awma doole mënumaa dox ak sama tànk sama làmmiñ rek laa am. ma bañ a yalwaan man damay dugg ci musée lu ma am jël